Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. dañoo ànd takkoo ñaanal la ci alxuraan ak xasida ba pare doog di ñëw ci barab bii di la xamal ne ñun de bëgg nañ la te yàlla rek a tax te giñ naa ko Serigne Touba duñ la mas a bàyyi euh, ñu lay xamal tamit ne la saytaane moom fu ne lay fu fu fu baax rek lay lay la lay lay xool mm-hmm. pour man faa dugg man faa yàq waaye ci kàttanu yàlla insha allahu rabbi dara mënut a dox suñu diggante ak yow dégg nañ lépp waaye duñ ko gëm ba keroog ñuy faat ndaxte tuuma yàgg na fi wax lu dul dëgg yàgg na fi te seytaane lu baax rek lay bañ a lay lay bañ a gis waaye nag alquran ñoo ngi jang ay khasida dina ñaanal suñ tuba bayyi da ndax sabu yoon mi ndax li nga ñun nak ñu lay fop lañ ñu lay sifur lañ fuñ tollu rek ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi diglu sa lu baax lu baax rek lañuy ñuy lañuy la salam ni deggun ci lenn lu dul lu baax kon nak ñoo ngi ñaan ci sëñ tuba mi nga xamne mom mo taxon ngay def billahi wallahi wa tallahi takal sa kanam nag ta cheikh ahmadou bamba xam ñu nga fi yàgg di nga wér ta liggey bi billahi dañ ko àggale ko nga fa ma fa nga bëgg man naa ko waat ci Serigne Touba billaahi wallaahi wallaahi dalalal sa xel ne biñ ñoo ko Serigne fii luñ fi doog Serigne Touba dina fi yàgg di nga wér te billaahi fi nga ko bëgg a billaahi da nga ko àggale parce que Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñun kontaan nañ bu baax yàlla fi yàlla yàggal ko fi ñëw na ko ñaanal Serigne Touba bàyyi ka mu yàgg fi te wér te àggale liggéey baax na jërëjëf loolu rek laa waxoon ne naa